moyens internationaux. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. internet dañuy bàyyi xel ci Seneinfo point net ak Seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal leen xibaar tey euh, samedi di 27 août 2022 ñu tàmbale ko xibaaru biir réew mi. syndicat yi nga xam ne nag euh, ñoo nekk ci ànd gësëm bësub tey bi amal nañ ab marche pacifique euh, fële ca euh, Thiès ko waral nag nee daal li nga xam ne dañ koo ak nguur gi te respecté wu ko wante itam seen i yi nga xam ne dañ leen teg loxo fële ca Tivaouane ak it li ga xam ne day xew pour Wourossogui daal ko daaboo ak nguur dañu jàpp ne lu jaaduwul la ay defkatu ñaawteef la ñu teg loxo fële ca yëmbal comico ñoom nag euh, daal euh, le 24 août bi ñu génne dañoo demoon foofu ci benn kër euh, boo xam ne daal ñu ne daam ku seet ca gannaaw ko nag am ñetti jigéen yoo xam ne ñoom lañ fa fekkoon ñu jàpp leen tëj leen si ab néeg sàcc fa ay takkaay ak xaalis ak i téléphone portable ca ko nag la teg leen loxo. seen o mu ngi xamal nag ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateur ne ay dog-dog dina am ci séddale dañuy séddale ndox mi lu ko dalee tey jii li ko waral nag ñu am ay liggéey yoo xam ne waa rek ñoom ñoo koy euh, def ñu ne nag yooyu la dog-dog yooyu la dog-dog kon dina laal euh, localité yi nga xam ne kon nag léegi yéen da leen di alimenté ñu ne bokk na ci nag Louga Thiès Joal Dakar. ak Baliya moom ñu ne loolu nag li ko waral nag daa am liggéey yoo xam ne comme ni ma ko waxee Senelec moo koy def mooy opération de maintenance ci li ñuy woowee TRAV 90 KV bu Mekhe ci poste bu Dobel. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Éthiopie foofu nag euh, l'armée ba ñoom ñoo bombardé démb ci ajuma ji Mekele di capitale bu Tigré nga xam ne nag kon. Euh, ña fa di autorité rebelle yu Tigré ñoom ñoo ko annoncé ak it ay sources humanitaires loolu nag mu ngi am si jamono yoo xam ne sax nguur ga ñu ngi doon xamle ne kon dinañ amal eh, ay eh, eh, daal ay militaire jëmale ci Tigré Burkina Faso colonel Paul Henri Damiba ba nga xam ne mooy jiite dëkk ba moom nag dafa def ay coppite ci wàllum l'armée bi bokk na ci ay régiment bataillon yoo xam ne dañ leen délocaliser maanaam toxal ak it euh, ab création maanaam taxawal vingt sixième régiment d' commando fële ca Boromo wante itam euh, bi nga xam ne dakkal na ko di groupement central des armées dañ koy jeexal xibaar sport gaynde gii di Diao Baldé Keita moom nag contrat ak Spartak Moscou club russe boobu. Euh, waral nag euh, engagé ak ñoom ba deux mille vingt cinq bu ñu sukkandikoo sax ci waa club ba ñoo ko xam ne ci seen compte Twitter loolu nag dina nekk contrat boo xam ne dina suqaliwaat euh, Diao Baldé a mi nga xam ne depuis daal boobu ba léegi kon dafa mel ni carrière am daa xaw a teg jëmbe lii mooy doon lu njëkk muy dem foofule ci championnat football bu russe li lay doon tey ci ay xibaar ndax seen taw li leen jox daje